aleykum ma rahmatullah yéen mbokki murid yi seen mbokkum taalibe Mouhamed fal moo ñëwaat di leen nuyu bu baax tey ñaanul Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di ñaawlu saa su ci nekk ñi nga xamante ni tey jii yor nañ ay làmmee ñu rëy ñi nga xamante ni tey jii saa bu nu waxee yoonu murid yépp déglu leen fekk lépp lu ñuy wax ci àdduna seen bopp rekk a leen ñor ndax tey ku ci mel ni Mamor Mbaye mii nga xamante nii giñ naa ci màggug arxuraan bi ma déglu vidéo bi léegi damaa rus damaa tiit ndax lan dara waralu ko lulul alal dara waralu ko lulul ëllëg Mamor Mbaye ab taalibeb Cheikh Ahmadou Bamba xaadim rasul Mamor Mbaye ki nga xamante nii amul dara lulul Sëñ Tuubaa daan ko wax ci suñu kanam chaque jour subaa ngoon guddeeg bëccëg mamoor mi nga bàyyi mi nga xamante ni daan yokk pas-pasu murid yi Mamor yow war ngaa dugg ci loo xamante nii sax dalay war a jaral ëllëg nga naan astaxfirullah ndax sa genre gii mooy tax ñeneen ñi tey saa bu ñu bëggee yab yab ñu sasaar gi mooy tax tey bu ku ku ku xamuloon yoonu murit bu yemee ci yéen bu dégluwaate seen bi njort ni yoonu murit yépp ne ni yow la ñu mel Mamor mbaay dañ ñoo bett Mamor Mbaye yaa ngi Idrissa Seck Mamor Mbaye la indi ci Idrissa la tax Idrissa Seck ànd yow tey waroo woon a taxaw sax naan ay Idrissa bi ma koy campagnal Touba laa ko doon campagnal waaye sax bu fekkoon mu gañe fépp moo ma ñor yow Mamor Mbaye yow doo nit dara yow ku bon nga Mamor Mbaye yow bokkoo ci alali Cheikh Ahmadou Bamba yi yow nguur jaral na la lu ne ndekete ndax tey boo taxawee ni Macky Sall li mu def euh, ci Touba amul benn président bu ko def kon yow Touba ñorul la da ngay fen li nga wax noonu Touba ñorul la du dëgg barke Cheikhul Khadim bu la Touba ñoroon kon Macky Sall mi nga xamante ne nii mboolem kuy président li mu def ci yoonu murid kenn def ko ci moom ngay àndal waaye tey boo demee ba taxaw taxawaay bii nga taxaw di faral bay faral musaa Diop mi nga xamante ni ilaa Touba la bëgg a dajji teg fële xanaa da fàtte keroog ba xaali moom jaxate ñëwee ci sëñ touba ni ko irkan jengal te djublu buntu buri cey kon kérok lan la ko cheikh ahmadou bamba xaadim rasul tont hasbi illahu dehran wa la ilaha allah man yalla doyna ma te ba pare yow mamor amu loy def lurul di depart nan dagay koi jéggalu koy jéggalu kan nga mam mamor ba di ko jéggalu yow mamor xanaa sëñ tubaa taxulaa djok ab taalibab sëñ touba warna rousa sax jegelu ci làmmañam lu muy nga taxaw mamor mourid yep nga bet ndaka sa wax ju ji nga nekkate Mamor mbaay doo dara doo tus barki Seexul Xaddim doo dara Mamor mbaay yow lii du sa domaine la woon sa domaine ba ñëpp béggoon la ci mais alal mooy lan alal jii ñu leen bëgg a jënde subaa ngoon ba bëccëg ñu leen koy jënde tey lii nga wax duma taxaw wàcc yàlla ni lekk nga xaalisu nguur de waaye ca nga jëm de yow de Mamor Mbaye war nga yoonu murit yow de Mamour Mbaye war nga képp ko ànd Idriss Seck mi nga nit bi taxoon ngay ngat-ngati ba tax ngay wax ba sa dënd di tànn ba tey jii nga taxawaat naan ay Sëñ Tuubaa taxoon Mamour Mbaye doo dara